wasalaatu wasalaam ala rasulillah ñu fàttali leen rek ci minute yi ñu dese balaa ñu koy perte ci taarifu du'a lan mooy ñaan ñaan ci làkku arab ñu ngi ko jëlee ci baat buñ naan woote moom mi nga xam ne ci cosaanam dafay tegtale jéng jëm ci benn mbir waaye bi nga jéngee jëm ci mbir mi ci sa baat nga ko jéngee da nga koo wax loo xamante ne ci yow la bàyyeekoo loolu moom mooy ñaan danga jéng jëm ci dara waaye kàddu nga jéngee ba pare nga wax wax ji mooy dafa am loo soxla li ngay soxla am ci ku mu nekk am ci loxo yu mu nekk nga jéng jëm ci kookook sa kàddu di ko ñaan ca la mu yore loolu ñaan dina ko tekki ñu ne addu'a at talabu wassu aal ñaan mooy laaj ak sàkku sàkku ak laaj wa huwa talabu taalibu lil fiili min gayrihi moom ñaan mooy aji sàkku tiif bi dafa sàkku mbir mi ci keneen ku dul moom loolu ngeen dégg yàlla di wax ci alquran ne hunaalika daa zakariya rabbahu qaala rabbi hablii min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samiu du'a yàllaa ngi nettali ab yonent bu tudd zakariya dafa toog ba màgget ndeysaan bëgg doom tey wan ne yàllaa mën yàllaay maye yàlla rekk moo mën yàlla rekk a yor kon ku soxla ci yàlla rekk nga war a dem borom bi nee na foofu Zakariya xelam demee ci doom foofu hunaalika foofu ca barab boobale daa Zakariya rabbahu fala Zakariya ñaanee boroomam daa di jéng jëm ca boroomam ci ay kàddu di ko ñaan di ko laaj lan la wax yow sama boroom qaala rabbi hab lii min ladunka maa ngi lay ñaan mu ñëw ci man jóge ci yow doom ju baax zurriyatan tayyiba njaboot gu baax gis nga moo tax doom doom aadama dafa bëgg doom doom doom doom yenn saa yi nga am doom ju lay alak doom juy tàngal sa xol yenn saay sax nga dégg ay ay wëyjur yu faatu doom yi ci doom yi la tàngal sa xolu papa tàngal sa xolu yaay yëkkati seen tension ñu faatu yenn saay nga gis ku màndi rey baayam yenn saay nga gis ku dóor papaam ku dóor yaayam ndeke kon li ngay bëgg mbir yépp loolu ngay bëgg boo koy ñaan yàlla bul fàtte ñaan ko loolu na ko baaxal na ko barkeel da zakariya bi mu ne zurriya da cee teg tayyiba njaboot waaye gu baax ko innaka yow yàlla samiu du'a yow dong yaay dégg aji ñaan ku ñaan rek yow yàlla yaa koy dégg bokk na ci ba tey ci ñaan lañ nekk mu ne wa iza saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daa'i iza da'an falyastajibu lii walyuminu bi laallahum laallahum yarshuduun borom bi nee na bu la gaañi laajee jaam ñi buñ la laajee man yàlla fan laa nekk dama sori maa ngi asamaan wala dama jege wala maa ngi ndeyjoor wala maa ngi càmmoñ wala ci biir suuf si laa nekk wala ci biir ndox mi na nga tontu nga ni leen fa inni qarib man yàlla dama jege jege goo xam ne ujibu daawata daa'i isa daan damay wuyu woo woote aji aji woote képp ku ma woo rek man yàlla ma wuyu la damay wuyu woote aji woo képp ku ma woo man yàlla rek dinaa la wuyu kon moo tax gis nga jullit dafa war a ñaan yàlla waaye da ngay gis jullit tey di woo ñeneen di woo ay nit di woo ay garab tàllal loxo ay bàmmeel ku faatu borom bi tabaraka wa taala ne ki ngay woo déggu la te bu la déggee it du la wuyu boo fi taxawoon di woote ba yowmal xiyaam du la wuyu te yowmal xiyaam dafay wedd wa yowmal xiyaamati yakfuruuna bi shirkikum yowmal xiyaam day weddi bokkaale gi nga koy def naan ko yàlla man kii laa doon bokkaale moom danaa la man fekki wu ma ko man ak yow sax bokkuñu jamono kon yàlla nee na man damay wuyu ku ma woo ujibu daawata daa'i aaya bi sart isa daani sart bi mooy man bala ma lay wuyu rek man yàlla nga woo ma waaw soo bàyyee yàlla di woo yaali yàlla du la du la wuyu parce que woowoo yàlla yaali ngay woo yàlla ak yaali nag nuroo nuroo nañu waaye yàlla moom xam nañ ko yaali tamit xam nañ ko moo tax dañ nañu woo yàlla bàyyi yaali mu ne fal yastajibu lii nañ ma jublu waay ay waay waay jublu leen ma waay waay waay jublu leen ci man waay li tax li war na daw yaram yàlla ne la boo ma woowee dinaa la wuyu ba pare yemu ci mu ne la waay waay jublu ma waay waay waay fal yastajibu li waay nañ ma wuyu waay yemu ci de mu ne wal yuminu bii waay nañ ma gëm waay allahu akbar waay waay wuyu leen ma waay waay waay gëm leen ma waay doomu aadama de bu dee yaramam war na daw war na daw ci aaye yi borom bi la bind ba pare naan la soo ma wooyee ma wuyu la yemu ci mu ne la waay waay wuyu ma waay waay waay gëm ma waay borom bi nee na bu ngeen ma wuyoo gëm ma lim leen di jural mooy laallahum yarshuduun danaa leen jubal kon bu nu buggee jub bu nuy naan bu ñuy ñaan dañuy woo yàlla dañuy jublu yàlla waaye dañu koy gëm suñu defee yii rek borom bi tabaraka wa taala daan ñuy nangul kon loolu mooy lu njëkk ci ñaan ñaareel bi mooy ñaan al ibadatu jaamu yàlla la yàlla nee na fala tad'u ma allahi ilahan axar fa takuna min al muazzabin bul ñaan bul woo keneen ku dul yàlla def ko yàlla bis boo ko defee di nga bokk ci ci ñu yàlla di mbugal kon ndeke gis nga woo keneen ku dul yàlla def ko yàlla di ko jaamu gëm ko di ko ñaan borom bi nee na daf lay jural nga bokk ci gaañi yàlla di mbugal fala tad'u bul woo bul ñaan bul yaakaar ma allahi booleeg yàlla ilahan axar keneen beneen yàlla soo ko defee lum lay jural mu ne fatakuna nga nekk minal muazzabin ci ñi yàlla di mbugal kon na nga jàpp ne saa yoo woowee kudul yàlla saa yoo ñaanee kudul yàlla bokk nga ci ñi yàlla di mbugal ëllëg yowmal qiyaamati ba koy ñaareel kon gis nañ bu njëkk bi mooy ñaan càkkutéef la ak laaj ba mooy bu njëkk càkkutéef ak laaj ñaareel bi mooy ñaan jaamu yàlla la ñetteel bi al istigaasa wal istiaana ñaan sàkku xettaliku la ak sàkku ndimbal danga bëgg dara mënoo ko ngay xettaliku ci yàlla pour mu xettali la ci danga bëgg dara mënoo ko ngay sàkku ndimbal ci yàlla pour yàlla dimbali la ci yolu borom bi ne wadu shuhadaakum min dunillah woo leen keneen ku ngeen yaakaar ku leen di seede te du yàlla waddu woo leen suhadaakum acca képp ku ngeen yaakaar képp ku ngeen yaakaar ci kàttanam ak mën-mënam ak ay pexeem ne mën na te du yàlla acca woo leen ko ngeen yaakaar ndax mën na leen a xettali ngeen yaakaar ndax mën na leen a dimbali acca woo leen ko wallaay da ngay gis doomu aadama tële da ngay gis doomu aadama ay pexeem jeex ñeenteel mbokk yi ci ñaan annida wasayaax woote la ak ay yuuxu woote gis nga booy woo da nga naan yaa rab woo nga ko ba pare woote gi dafa ànd ak yuuxu yaa allah allahumma yaa ilahi yaa rabbal alamin gis nga woo nga yàlla waaye woote gi dafa ànd ak kàddu kon mu ne an nida wat siyaax qaala taala yawma yaddu uddaai ila shay'un nukr bis bi nga xam ne aji woote day woote ci mbir moo xam ne kenn bëggu ko ñëpp ko sit mooy tey la yowmal xiyaam tey ngeen di dee yéen ñëpp tey la ngeen tey la yowmal xiyaam yàlla dina leen fay ngeen dugg aljanna wala ngeen def safara baat boobu kenn bëggu ko dégg moo tax yàlla mu ne fàttaliku leen bés ba nga xam ne aji woote dana taxaw ci mbir moo di wax mbir moo xam ne kenn bëggu ko mooy mbirum dee ak mbirum dekki kenn bëggu ko borom bi ne fa daa rabbahu anni maghlubun fantasir am na ab yonent boo xam ne keroog ba ko mbokkam yi sonalee dafa taxaw naan yow sama boroom man de sonal nañ ma yow yàlla nang ma fayul gis nga kon dafa woo boroomam kooku mooy ñeenteelu tomb juróomeel ba tey ci ñaan alqawlu wax la ñaan wax la borom bi ne daawaahum fiha subhanaka allahumma waa aljanna buñ duggee aljanna seen ñaan wax ja ñuy wax ca biir aljanna mooy yow yàlla yaa sell wallahi subhanaka daawaahum seen woote seen wax fiha ci biir aljanna mooy subhanaka allahumma yow sunu borom yaay ki sell ndeysaan waa aljanna buñ digee aljanna dañuy sellal yàlla buntu boo fëgg rek nga dégg gaa yi naan subhanaka allahumma sell ñeel na sunu borom kon loolu mooy juróomeel juróom bennal mooy ñaan at tawxiid kennal yàlla la wa annahu lamma qaama abdullahi yaduuhu yaquulu laa ilaha illa allah wa yaduuhu ndeke ñaan kennal yàlla la yàllaa ngi wax ci alquran ba sama jàmba taxawee dima woo man yàlla kese moom jàmba ma nga naan amul benn buur amul kenn kuy yàlla ku dul yàlla muy woo yàlla gis nga at tawxiid ndeke ñaan kennal yàlla la kii ñaan xam ne ne yàlla rek a fi nekk te xam ne ne yàllaa ko yor moo tax mu bàyyi ñëpp jublu yàlla ndax xam ne ne yàlla mooy kenn mooy ki yor mooy ki mën mooy borom kàttan bi mooy aji joxe ji moo tax mu tàllal yàlla ay loxoom di ko ñaan naan ko yaa rabb naan ko yaa allahumma naan ko subhanaka allahumma juróom-ñaareel assana ñaan tagg la wa minhu qawluhu azza wa jal qul idu llah aw idu rahman wa gayru zalika woo leen yàlla wax leen allah wala ngeen woo arrahman wala ngeen ne arrahim wala ngeen ne almalik wala ngeen ne alquddus wala ngeen ne assalaam wala ngeen ne almumin wala ngeen ne almuhaymin wala ngeen ne alaziz gis nga allah al awal al axir alzahir albatin alali al ala almutaal yii yëpp ay tur yàlla la alazim almajid alkabir alsami albasir alalim dañoo bëgg nag boo amee soxla booy ñaan yàlla na nga xool ci turam yu li nga soxla ci li nga soxla nga xool ci turu yàlla yi bu mel noonu nga ñaan loolu dangaa bëgg a jub nga ñaan alhaadi da ngay sant nga jël ashakuur danga dangaa bëgg yërmande nga jël arrahman dangaa bëgg yàlla may la nga jël alwahab dangaa bëgg wërsëg nga jël arrazaq gis nga dangaa bëgg lewet nga jël allatif dangaa bëgg a nooy nga jël arrafiq da rafet aljamil dangaa bëgg mu may la almuti gis nga sooy ñaan ci turu yàlla yi nga xam ne melokaanam yi noonu la mel yooyu ngay góorgóorlu nga jël ko ndax amaana léeg-léeg borom bi tabaraka wa taala nangul la ko nga daal di am melokaan bu mel noonu kon ñaan tagg la kii ñaan mu ngi tagg yàlla mu ngi wax yow sama borom yaay yàlla yow aji yërmande ji gis nga uduullah yàlla ne woo leen yàlla aw uduur rahman wala ngeen woo rahman allah tur yàlla la arrahman tur yàlla la kon mbokk yi suñu darsa tey mooy daf ñu doon wax lan mooy du'a ci làkk arab lan mooy ñaan ci arab bu ñu amaatee dars ñu ngi jël addu'a fi sharia du'a nan la ko islam gisee nan la ko sharia jàngalee ñu ñaan buur tabaraka wa taala mu jëriñ ñu maa ngi leen di jégglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu